jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Walfadjri dellusiwaat nañu ci daara ji man ak eh, El Hadji Assane eh, mu nekk nag jotaay boo xam ne ñu bari dañ koy sopp waxtu wi rek ñu ànd ak yéen ànd jàng ma jàng ngeen jàngaale waaye jàppale na nag man maay jàng yéen ngeen jàngaale ci man Oustaz Assane Diouf maa ngi lay nuyu di la ziar. Mouhamed maa ngi lay fay waaye di la laaj eh, Adi bi mu la wooyee sànq lan lan la la wax. waaw Oustaz Adi Oustaz Adi nag li Adi nag li nee na mun munuñ may jàngal ma toog ci kaw ci suuf laa war a toog léegi nag damay laaj ñaan na léegi ndax yow hmm. yaa ma autorisé ma toog ci kaw wala da ngaa bëgg ma wàcc toog ci suuf waaw jox naa ndigal nga toog ci kaw waaye saa ma la ne wàccal ci suuf rek nga wàcc waaw <laughs> ah, kon kon oustaz dégg nga dañ maa jox ndigal ma toog ci kaw ah kon dégg nga toog naa ci kaw <laughs> mais maa ngi lay ziar oustaz am ah, mbégte loolu maa ngi lay fay jaare ci yow euh, nuyu ñi ñuy seetaane toujours ci biir réew mi ak ci bitim réew. acca <laughs> mu mel ni nag euh, démb am na yu ñu yu tàmbali woon yu am solo waaye laata boobu nag xam nga ñun saa bu ñuy dogu dañuy utiliser li nga xam ne moom mooy di sucria. muy suukar bi ma la doon wax démb suukar boo xamante ni. Hmm. Euh, vraiment mën nga ko jëfandikoo. Hmm. nga jabet ak nga ñàkk a jabet ndax boo jabetee moo baax ci yow boo jabetut itam da moytul. ba jàngoro jooju du la dugg waaw suukar su bari. Hmm. muy nag ay doomu Sénégal yoo xam ne ca bitim réew lañ nekkoon ñibbisi jógee def lii ci dëkk bi ah mm-hmm. euh, dolli ñoom it seen kii jël ay emploi ci ci mm-hmm. dëkk bi mu nekk loo xam ne lu am solo la nekk loo xam ne wax naa ko démb ñu mel nii nag njiit réew mi daf leen war dalal di leen encouragé mm-hmm. alors bu ñu jugee foofu itam bu ñu ndogoo ba pare dañuy naan Aquaterra waaw ak yatasaay lañ ciy àndal moom it muy doomi réew mi di liggéey ci réew mi ndox mi nag dee leen ko naan ndax boo ndogoo ba pare di ko naan day tax nga gën a oyof te dafa ndox mi dafa neex euh, kon ndox bu am solo la oustaz ñi xanaa xamoo ne euh, Mouhamed ci wàllu alimentation ndax réew mi mhm. mu ngi sukkandiku ci boppam walla déet mhm. na taaj boolu añ nga seet ci kaw añ bi yëpp est-ce que fii lañ ko produire wala déet est-ce que est-ce que loolu njàngat la <laughs> jox nga ma beneen leçon <laughs> jarul jarul ay euh, université jarul wëri déedéet xoolal bool bi rek añ bi rek nga seet <laughs> muy consommé local consommation locale la wala oustaz loolu am na solo aca mu mel ni nag démb am na hmm. euh, laaj boo laajoon ma bàyyi la nga dellu si waat ci balaa may ñëw ci démb nag euh, hmm. yow kañ lañ kan lañ la tuddee Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. kon joyeux anniversaire. ah oui waaw waaw waaw joyeux anniversaire ndax tey la tey tey la anniversaire am. tey mooy anniversaire ñu bari nag xamuñu ne. Uh-huh. Euh, le 20 avril. te uh-huh. suñu mag ñi ñu bari woy nañu ko. Uh-huh. le 20 avril mooy. juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulilah xam nga weer wala di weeru weeru weeru l'islam bi. bi mu nekkee le 12. ci euh, rabiul awal. dafa am fu mu tombeel ci ci at. mu am 2021 euh, ren. Ah. boobu euh, le 20 avril la woon. le 20 avril la woon. 571. Hmm. dëgg la. Mm-hmm. loolu am na solo kon anniversaire bi. am na solo kon nag. xam anniversaire sama tooma. yu war a am ci kanam. parce que da nga koy wax léegi wala da ngay bàyyi ba ci kanam. Euh, bon dañ nga ñamali leen tuuti war a ñu ñu ñu ko en daal dinañ ko ko feeteel. <laughs> waaw li ñu mënta xam daal mooy léegi 22h30. 30 bu ngeen ko tardé te mm-hmm. bu ngeen tardé anniversaire Seydina Mohamed nag ma xam ne. Mm-hmm. yéen xamatuma ci yéen dara. loolu tax na ba euh, bésu tey bi. bésu tey bi dafay ala na feneen fu ñu nar a fëlee. waaw ci euh, table d'honneur bi waaw. <laughs> <laughs> mu nekk rek gàmm goo xam ne mooy gàmmu jëppal bi ñoom it seen anniversaire bi waaw te nga xam ne bàyyi moo ko defoon mm-hmm. mi ngi ko defoon mille neuf ci di 20 avril voilà Walfadjri na ci fëllee fenn waaw kay koo xam ne incha allah euh, du leen ko wax waaye mm. rendez bi daal mooy te bu loolu jeexee itam ñu tegal leen ni leen daan tegalee ba tey rek waxtaan wi waxtaan woo ne bu am solo lay te wàññiwuñu waaw yokku nañ wàññiwuñu waaw mooy yéen daal kal leen ko fi ngeen ko kal rek mhm. acca bisimilah tafadal maskuran laa lay wax waaw Mouhamed euh, mhm. préparé nag am na benn question boo xam ne du la am na beneen question boo xam ne uh-huh. du ma la bàyyi nga yóbbu ko suba pour euh, nit ñi di la ko laaj mhm. ndax contexte bi moo ko dama la koy laaj léegi dama la koy laaj ci kanam nga tontu ko ci kanam d'accord acca nañ dem ci li ñu li indi woon démb waaw loo ñu laajoon démb démb ñu ngi doon wax ni am na saar boo xam ne dafa am benn baat bu ci ñëw maanaam dafa am euh, euh, benn baat boo xam ne dafa baat boo xam ne dafa composé woo mm-hmm. euh, ñaar maanaam benn phrase la mm-hmm. phrase bi ñëw trois fois ci saar wi ci saar bi ci saaru gàtt yi mm-hmm. ban saar la waaw phrase bi d'après ñi nga xam ne ñoom ay jàppale bés bu yàlla sàkk boo laajee ñoom ñoo ay soto ñu ci ñoom ñëpp sax dañoo mànkoo ci benn saar lañ ma wax muy inna anzalnaahu inna anzalnaahu Uh-huh. moom lañ wax inna anzalnaahu yow mi ngi mel ne mokkal nga ko de inna anzalnaahu fii laylatil qadri oustaz te nga bañ a dugg ci loolu <laughs> wala ma la ba laylatul qadr ñëw nga taari ko en daal euh, yow laaj bi nga laajoon mooy inna anzalnaahu waxuma la woon lañ ma wax ndax dafa am fi laylatul qadr bi laylatul qadr bi daf ci ñëw ñetti yoon mm-hmm. voilà laylatul qadr bi daf ci ñëw ñetti yoon ci phrase boobu am na sax borom xam-xam yoo xam ne Muhammad mm-hmm. foofu la ñu sukkandiku sax ñu ne guddik 27 mooy euh, mooy laylatul qadr laylatul qadr parce que boo seetee baatu laylatul qadr nga compte compte yi ci nekk. Mhm. neuf lettres la. neuf la ay la tu a al qadari. muy neuf maanaam neuf euh, trois fois trois fois. neuf vingt sept. vingt sept. Mhm. ñoom ñu ne kon. yàlla daf doon léeb rek daf di junj rek waaye. Mhm. daf leen doon wax ne biif yaa ngoog. ku am xel dina xam fan la. dëgg la kon mag ñeek euh, ñu jiitu woon. dañu ne loolu yàlla. ci loolu la junjee fan la laylatul xadar nekk ci biir koor waaye boo bëggee am laylatul xadar daal mhm. jàppal ne chaque jour bi weeru feeñee ba ba muy nëbbatu mhm. jour bu nekk rek jàppal ne laylatul xadar la bu boobaa laylatul xadar dina nekk ci biir mhm. moo te sax loolu moo tax ñu nëbb ko d'accord waaye nag àggaguñ ci buñ ci àgg waaye dama laa indil mbetteel ndax xamoon naa ne fa nga jëm ak man hmm. ndax biñ waxee inaan zana bi a nafar ndax xamoon naa ne fa man da <laughs> yàlla dafa yàlla dafa def rek ma am ñaaw njort ne mën na am ñu ma ne bu ma naan ko inna anzalnaahu mu ne ma nafaral ma ko <laughs> waaw waaw léegi nag gars yi jàppale nañ ma <laughs> ñu ne ma inna anzalnaahu fi laylatul xadri mhm. wa ma adraka ma laylatul xadri mhm. laylatul xadri xayrun min al alfi shahri mhm. tanazzalu malaikatu ruuhu fiha bismi rabbihim min kulli amrin salaamun hiya attamat lan alfajri boobu nag nee nañ ma am na liaison mais liaison bi laa mokkalagul fin boobu. waaw ma euh, salaamun hi salaamun hi hatta matla'il fajr. waaw waaw. Euh, inna boo nee inna anzalnaahu fi laylatil qadri. qadri muy benn wa ma adraka ma laylatul qadri. muy ñaar laylatul qadri. muy xayru min alfi shahr. Mm-hmm. tanazzalul. tanazzalul maanaam tanazzalu la woon. waaw mais nag dafa am alif ak laam yu ñëwaat. moo tax nga def liaison. muy tanazzalul. tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiihaa. xam naa loolu la la doon oh, loolu la ma doon <laughs> <laughs> mais da nga ko tëjee nag moo ci am solo. guddi goo xam ne salaamun hi hatta matlail fajri nee na. Mhm, mhm. guddi la goo xam ne yàlla dafay duy jàmm di duy jàmm ci adduna bi di duy jàmm. Mhm. mais boo tànkee ci ngay am. ci ngay jàmm. dëgg la hatta matlail fajri ba ba ba ba fajar di xar. kon ah, jar jar na taataan tey naa montre bi ak ñaari junne ndax maa la bet waaw waaw waaw dina dinaa waxaat seex mu tegaat seex nee na xam nga seex lan la ma wax. Ah. nee na boo tegoon un million sax bis ko jël. ci journal bi. bi laay wax ne dëgg journal boo tegoon ay millions sax dama koy ñàkk mais bi moom dama yàlla xam na ne dama ne noonu naa nafar lii parce que oustaz. mun na ma ko laaj posé ma ci question wala mu teg dara. Mhm. ma nafar taxaw. léegi nag euh, li may def noonu am na solo. <laughs> Ah. ñu laaj la dara nga dem laajte. Ah. léegi li ma lay euh, laaj. Mhm. tey pour nga laajte ko suba. Mhm. mooy euh, booy dugg sa néeg parce que l'islam bàyyiwul dara. l'islam Mouhamed bul fàtte projet de société la. Mhm. bàyyiwul dara. li fi tubaab yi indi yëpp ci lu baax l'islam indi na ko ba indiwaat leneen. loo xam ne amuñu moo tax bu ñu xamoon dañuy jubal directement ci l'islam. dama lay laaj booy booy booy booy génn sa néeg looy wax. booy génn ci néeg bi. waaw am na loo war a wax. man léegi demal sa gaa yi nga gëstu ko. <laughs> il faut da koy gëstu mais laaj ma lan laay wax instant bi instant bi man li may wax hmm. eh, ñi ngi may wax ne suñ temps bi nga waaj a jeex instant bi man li may wax moom man lépp lu may def rek bismillahi rahmaani rahim laay wax <laughs> man waaw léegi nag comme nee nga ma waaw gën a naa gëstu ji waaw génn néeg bi looy wax looy wax hmm. boobu rek laa laaj waxuma dugg kon gars yi hmm. laaju tay bi mi ngi noonu bu may génn néeg bi lan laa war a wax gars yi xettali leen ko gaa yi xettali leen ma ah, xam nga lan laa lan laay tëjee waaw ci li ma bind ci kayit bii lay tëjee wax nañu sa anniversaire turandoo sànq. waaw. dama lay laaj ci ban at la ñu nekk ci at yi may bëgg wax. waaw atum jullit mi. atum jullit waaw. ndax 1340. waaw wala 1441. waaw wala 1434 ban lañ ci nekk entre les trois ban la ci. ñu ngi ci 1441. <laughs> xam naa gaa yaa ngi lay reer. 1441. yi mu wax nii yëpp ba ci benn. <laughs> Oustaz Oustaz bàyyi may dem. 1442 la. la ñu nekk. waaw 1442. waaw waaw. <laughs> kon jege naa ko. <laughs> mu ngoog euh, te at moom dafa am importance ndax. Euh, euh. ci yu bari ci ngay xamee sa ñaata at laa am. parce booy compter ci bii dafay am at yu lay raw ci bu amee bu amee 30 ans dafay am benn bu rëcc. d'accord mais compte pire boo koy compte nga xam ñaata at nga am wala sa azak kañ la nga ko a ah. génnee. ci bële rek nga koy compter. d'accord kon jërëjëf oustaz. <laughs> Mm. mbokk téléspectateurs yi jërë ngeen jëf li ñu cëralee woon ci waxtu jeex na waaye leer na